baraani albaaxi min alamraadi wa kaba man ankara bi atiraadi baraani albaaxi min alamraadi wa kaba man ankara bi atiraadi lahu sukuuri ala xayaati abdan xadiman faaza bil ayaati askuruhu zukra allazina sharibu min azbi wa lil jinaani xurribu xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjizatan baanat li husni xayri yajuudu lil jawaadu bil jiyaadi wa suulu li yakuunu zan xiyaadi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 nafaani bil mustafa al musafai alaytani maahu nafa al anfai daa xilaamiya ila sukuri man saqara lil xalqa baqa izaaman rabbi maliki xalili walxabib waxat ma niya daaya tabib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 mën naa toll ci cent trente personnes daal ci gàttal cent ah, heure bi ñuy jàng comme heure bi ñuy jàng ñoom huit ba treize heures après cinq ba dix huit heures trente. quinze heures ba moom mën nay jàng waxtu woowu lay jàng. waaw oh, internat bi ñi nga xam ne ñoo féete ci daara ji ñu ngi toll ci téeméeri xale ak fukk jamono ji foofu lañ toll. seen programme it programme jàng suba la huit ba jàpp 13h ngoon gi 15h la ñu tàmbali ba 18h ginnaaw bay dinañ jàng marax ginnaaw ñu jullee timis ba buñ noddee gee la ñu jàng marax fajar gi it noonu dañ koy jàng ba ba set. waaw daaray maam Cheikh Anta numéro 2 mi ngi tollu ci xale yi ñu ngi toll ci 64 personnes comme programme bi mu ngi commencé 8h ci la ñuy dugg jàng suba gi ba ci la ñuy wàcc. bu ñu quinze heures bu bu ngoon gi ñu dugg 15 heures 30 ba 18 heures 30 marax gi tamit bu ñu jullee timis pare dañuy commencé ba ne bu bu ñu noddee gee fajar gi tamit dinañ jugaat ci fajar gi ba 7 heures 30 bu ñu paree daal di ndékki soo ko duggaat jàng ci suba bi waa inter waa inter la daara ji internat la xam naa toll lii wooguñ jël commencé gu ñoo jël euh, externat yi. Hmm. waaye internat la ñuy la ñuy commencé guñ. bu fekkee daara maam Cheikh Anta numéro 2 numéro bi ku ko ku ko soxla da ngay def 77 142 11 90 boobu boobu numéro boobu boo ci jokkee rek ñu wax la condition yi daara ji incha allah. waaw waaw li ñu wax naan ahdaaful euh, baida mooy objectif yi nga xam dañoo dañoo sori ak yi jege yi yi jege yi moom mooy yi ñu toll waaye yi sori moom moom yaatu na lool bokk na ci dem ba ay foron yu bari maam Cheikh Anta ba. dem ba yos boo xoolee lim yi sore sore sori loolu bokk nañ sunu euh, objectif yi nga xam ne am nañ ko ci waaye it euh, xale yi fa fas yéene leen a jàngal yar leen ba ni amee seeni moroom yoo xam ni yu fi jaar ñi nekk Maroc ràññeeku lool ku mel ni sëñ Abdou Xawarum sëñ Mbàkke ñi nekk boo xool Égypte sëñ Mbàkke Abdou ñi nekk ba Madina sëñ Saam ñoom ñi nekk Gànnaar am ah, si am lappe xam ne tey ji moo jiite mbooleem ngeen nekk gànnaaw ci ay murit loolu ba tey ba ak yeneen génération yi ñëw it amaat yeneen capacité yoo xam ñoo gën a garaaw yooyu ba ñooy ñu toll noonu kon day mel ni bëgg rek maam jàngale islam boo xam ni ñi fi jaar dañu ay cadre yoo xam ne wala ay kawaadir yoo xam ni dañuy taxaw diine waaye taxaw yoon yi taxaw humanité bi shifa bi shifa amma loolu mooy sunu sunu objectif sëñ Maamun yi nga moom bëgg na daara incha allah dem ba àgg fa incha allah jamono ji ma lay wax it am na ñaari teere yoo xam ne naa ko daaw. sëñ bi baaxum bàyyi sëñ bi moo ma ko joxoon moo ma ko jaayoon ci fekkee na ko ci ñetti poto ñaari terrain yooyu fi ne mool naa fa une tonne cinq cent bëggaat ko salikaat balaa déwén ma defaa fa daara joo xam day nekk daara maam Cheikh Anta trois wala quatre incha allah. waaw daara ji am na ay góor ak ay jigéen mu mel ni am na ay soxna xam naa sax ki di jàngal waroon na feete waaye xëy na daa nekk ci yitte yi jigéen jigéen ñi dañoo am seen daara bopp ci ginnaaw. nga xam ni ñoom it soxna yi ñoom leen di jàngal comme ni góor ñi di jàngale góor ñi ni la soxna yi jàngale soxna yi. waaw ñi fi mokkale depuis 2007 bi daara juddoo ak léegi defe naa war naa toll ci ñaar téeméeri nit ci xayma ndax donte ne am na ñun bind waaye am na ñoo xam ne xay na dañ leen di fàtte léeg-léeg waaye ñaar téeméeri nit ñi moom jàpp naa ni mat na ba topp. numéro yi daara ji ku ci bëgg jog mën ngaa woo ci 77 269 80 82 51. 269 82 51 wala 76 389 54 17 waaw yooyu it numéro daara ji la ak euh, am na beneen tamit 76 234 72 35 mooy numéro Baye Serigne Mbacke xam naa moom it incha allah. jërëjëf suñu asfaal yi moom moo nekk ci suuf moo moo yor ñiy jàng di ñibbi moom koo bëgg a woo mën nga ko woo ci 76 881 03 78 wala 77 253 81 78. 253 81 78 أحمد كل أعلى عليه خير صلوات الأعلى سنت له أبكار أمداه لدى من جهل سأني وسف الخلدا قلبي سفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا خلي wajahali xalaawata daarayni wa fi jaalani jaarayni nafaani fi ma madaa wa maxtafa maa ngi leen di nuyu kenn ci nekk sa tur ak sa sant di la ziyaar di la massaw coona mu doon coonaa bànneex rek ak liggéeyal alxuraan waaw di sant yàlla ak yonentam bu tedd bi ah ginnaaw loolu nag di sant sëñ Balla mi nga xam ne mooy jëwrinu daara ji di sant euh, xale yu góor yi taxaw daara ji waaye di sant sama dëkkandoo yi nga xamante ne ah bu bu bis bi dikkee rek bëggatuñu leen dagg nañ seen i nelaw jël seen temps ñëw ñu ànd ko bis bi te xam ne liggéeyal alxuraan rek moo am solo waaw di sant ndey daara yi nga xamante ne ñooy fóotal daara ji di sant ñii nga xamante ne ñooy taxawu togg gi yépp man duma ci leen daanaka man rek mënuma leen boo gisee fii bagage yi ñu fi wàcc liñ fi def lépp nga xam ne bu doon sama jëm ji rek xeebu na ci lool waaw di leen sant di leen gërëm tey ñaan suñu borom lépp lu fi waay liggéey soo demee nga gis ci sa bopp bu dee tawat yàlla na dañ bis tey bu dee ay xéewal yàlla na ko sunu borom féq ci barkeb alquraanu karim ndax alquraan kat fi mu ne nii daanaka moom ku jàq rek alquraan kon mooy premier ñun nag danoo ñaan yàlla di ko teewe ay ati at dem ba suñuy goro di ko séqante ci barke Seydina Mouhamed yàlla nañu yàlla defal gudd fan wér gi yaram xale yu góor yi jiite daara ji ndey daara yi di fóot ah, ak ñi nga xamante ne ñooy toggal daara yi ak donga yeeg xale yu jigéen yi ñëpp moom daal aajo ju nekk rek yàlla na faju ci barkeb alxuraan waaw maa ngi sant nag di gërëm waaw di wàcce foofu sama kàddu rek. asalaamaaleykum man soxna Fatou Fall laa tudd ndeyu daara maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ne sa tur sa sant di sant euh, Balla mii nga xam ne moo yor daara ji di sant maam goor Fall ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci daara ji di ci ñaq yal na leen yàlla fay fay mboolem jullit ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bu nege ni déwénee nag yal nañ ko def aw nag ci barke Sëñ Tuuba baak tasargal sunu jàmbaari fi mokkal

أخي دفع أسن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تأتيني المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت بي لبس علم أهلا برأني العليم من ضلالي فصرت مخستا بلا إخلالي برأني العليم من ضلالي فصرت مخستا بلا إخلالي maha alxakimu ma tara kulliyati min albalaya aqbalat hadiyati ilayya aqbalat hadiyatul karim wa kullu ma kuntu min allahi arum ayatu munzilil kitaabi nuzuli wa innani anil azabi mazili إذا تلوت آية نلت منا من مالك ملك قد أمنا تسليم باخ لا يزال أكرما على الذي لي يؤدي كرما أبقى سلامي الذي لخادا فرحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافعين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأعزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق sadaqallaahul aziim. A'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim. Inna Allaaha laa yaxfaa 'alaa huwal lazii fil arhaami kayfa yashaa' laa ilaaha illaa huwa al-aziizu al-hakiim huwa allazii anzala alayka al-kitaaba minhu aayaatun muhkamaatun hunna ummul kitaabi wa uxaru mutashaabihaat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله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 يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عنهم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 والله يغير بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم هم لا يؤمنون ختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غساوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر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 قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اغتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق الحق بعدما تبين كأنما يشاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون يشهدون أن خير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النشر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغزيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن الصادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون sadaqallaahu l-aziim bihi yaa qawmi innakum zalamtum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يؤمنون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم la bàngi nii alxuraan la moo fi gën ndongo daara ñoo ngi nii sant yàlla moonu war ñoo ngi jàng téere bi boole yar bu mat ndongo daara ñoo ngi nii sant yàlla moonu war ñoo ngi jàng téere bi boole ko yar bu mat seetlu leen bu baax a baax ndongo daara am na leer buur bi yàlla moo ko def téere moo nu aar seetlu leen bu baax baax ndongo daara am na leer buur bi yàlla moo ko def téere bi moonu a waay juur wi dimbalil sa doom ji mu jàngu ko ndax mu xam ci diine ji yoon ul di siyaar sëñ Muntaxa Mbàkke yabal na fi ndaw siñ xabbaan moom sëñ fàllu mu waroon a jël ay kàddu waaye mu xaw a am tuuti ab coono ndax ndakaaru la jóge mu wax ne naa ko jëlal ay kàddoom ngir kàddu sant ak am mbégte ci lii siñ Maam la di def nga xam ne loolu moom ñëpp la ko defal su sañoon nag day toog ànd ko ak yow ba lépp jeex waaye dafa jóge Ndakaaru te sëñ bi yabal ko coono boobu jàpp ko loolu moo tax waaye am neen am na ci mbégte bu baax a baax di jël kàddu tamit ci njabootu soxna Daba Mbàkke gi fi teew ci njiitul soxna Faati Mbàkke moom suñu Abdoulahi borom dër bi mu ànd ak soxna Njaxat Mbàkke moom suñu Abdoulahat ak Sëriñ Mbàkke moom suñu Maamoor moom suñu Modu Maamoor suñu Cheikh Touré moom soxna Xadi moom maam Cheikh Anta ak soxna maam Anta Mbàkke ak mbokk taalibe yi ñu àndal yëpp ñu wax ne suñ maam Balla ñoom nee nañ ñu ngi lay sant bu baax a baax ndax xam nañ sa diggante ak soxna Daba xam nañ ci lu baree bare noo ko bëggee woon ak noo ko fonke woon ak nu Soxna Daba meloon ci yow loolu ñëpp xam nañ ko kon bis bii nga amee tey teew giñ fi teew ñu ngi lay xamal ne am nañ ci mbégte bu baax a baax ndax bisum alxuraan nga woote te alxuraan mooy lépp kon ñi ngi ñaan nga dajee ci ak tawfeexi sëriñ bi ak ndimbalam xale yi nga xam ne yaa ngi leen di tàggat tamit li nga bëgg ci ñoom ak yar bi nga bëgg ci ñoom ak alxuraan yi nga bëgg ci ñoom li nga bëgg lépp sunu boroom jàppandil la ko ba nga amee ko ni nga ko bëgge kàddu yi jërul muy gudd ndax ay kilifaa fi nekk dañ doon yëkkati rek kàddu sant ak gërëm ci turu waa kër Soxna Daba Mbàkke ak ci turu sëñ Xaabaan Mbàkke da nga xam ne daal am nañ mbégte bu baax a baax a baax ñu ngi lay ñaanal suñu borom sàmm la aar la bay fi nga bëgg àggale liggéey bi nga àggal lu kawe noonu jërë ngeen jëf ngeen jéggal ñu kàddu yu baax bismillahi wa sallallahu ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ziyaare di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di ci jiital uh, sëriñ As moom Mbaye Amidou mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ak mbooleem waa Daaru Salaam ñi nga xam ne Euh, ñoo teew fii ñu xam ne ñu ngi jël kàddu ci turu Baye Serigne Mbacke mi nga xam ne mooy euh, kilifa ak euh, kër Serigne Guédé ngir bis bii nga xamante ne bii sëñ Balla cërale na ko Baye sariñ mu ne nañ ci jël kàddu xam naa ne kàddu la goo xam ne. mën naa gudd mën naa gàtt ci ñaari anam bàyyi Serigne Guédé ci Daaru Salaam bàyyi Serigne Guédé ab sëriñu daara kàddu euh, guñ ko ci joxe cër rek euh, yelloo na ko ndax euh, moom dañu daan wax ne man xamuma sama waajur ba ma amee juróom-ñaari at mu yéegal ma ci aw fas di ma yóbbu gedd ci suñ mbàkki busoo may dal jàng laa ko mujj a gis ñetti at la ci tegaat mu génn jamono dundam gépp mu def ko ci daaru salaam eh, mu ne mi ngi fi ñëw jamono yi nga xam ne mokkal na di toll ci beqi sëñ Modou Mamoun jël ko yar ko taxawu ko ba lii lépp am ci ay loxoom mu àggale ay liwaam ci bàyyi ci euh, nekkoon jàngalekat bu mag bu ñépp xam ñii fii sëñ Balla tudd nga xam ne dañoo mos a nekk xarit bàyyi am di euh, may ak bàyyi njaga silla ak ku mel ne ki bàyyi àll caam Baye Sëriñ nee na jaxasoo woon nañ lool ñoom ñett ñii moom nee na ñoo bokk noo bindi kaamil ci benn nekk moom Baye sit la ak Baye euh, Alla Thiam fii ci Daaru Salaam kon euh, ci anamuk Daaru Salaam buñ ko ci buñ ko cëralee jaadu na ndax mën na ne moom kër Sëriñ Mor Jaara la cosaanoo waaye itam Daaru Salaam la cosaanoo ndax diggante soxna Marème ak soxna Buri mii waajur sëñ Modou Mamoun ak euh, mii waajur soxna Astou Bousso moom mi jur Baye Sëriñ Guédé waaye itam Baye Sëriñ Guédé jàngalekat mën naa ne sax caanam googu ci la ñuy xool mën nañ ne mooy fii mooy mooy mooy sëriñu sëriñ daara yi fi nekk ndax ñu baree bari jaar nañ ci loxoom fii ci Daaru Salaam Baye Sëriñ Mbàkke mii toog bokk na ci mag ña génne ci daaraam ak ñu bare bare nag jaar nañ ci loxoom ci dëkk bi sëñ Maamun mu fàll Fàllu sëñ Moodu Maamun moo ko ko joxoon bi ko sëñ Fàllu joxee sëñ Moodu Maamun bàyyi sëñ Gédal la ko joxoon moo sëñ mbàkki mii ñoo jàngandoo bindandoo kaawin fii ci kër gi ak mbooloo mu bare ci kër gi kon tam anam googu buñ ci joxee bàyyi sëriñ Gédé tuddee ko bisub alxuraanul karim yell na ndax ndax loolu sëriñ daara la woon 1945 euh, la ko jiitu fekk na ko Daaru Salaam tànnee na 55 ba dundam gépp ci la yor daara di jàngale musul liggéey leneen mu ne jamono yi nga xamante ni bii ci la mokkal alxuraan ko ba milikaay ba noppi sëñ Modou Mamoun daf koo digal mu jàng xam-xam doon demoon fii ci caaween bi sëñ Souleymane nelawee mu jóge fii dem njaareem nekkoon fa ak mag ñu bari sëñ Muntaxa mii bàyyi sëñ nee na ma ñoo bokkoon di jàng xam-xam booba booba sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu ëppoon lu mu ko doon jàngal ñu bokkoon nekk ginnaaw bu ñu amoon yéene dem gànnaar comme ni mu xewe woon jamono yooyu yëpp waaye bañ waajee ba war a dem sëñ Modou Mamoun ne dama lay binduloo ab kaamil ma bind ko bind bu gaaw ngir yàkkamtee dem ba ma noppee mu ne ma sëriñ dama bëgg ñu waxtaan dama bëgg nga xam ne koo gis fii mu am lu mu tàggoolut daal liggéeyal cheikhul xadim ba mu gërëm ko wala mu liggéeyal ku liggéeyal sëñ tubaa ba mu gërëm ko yow na dama bëgg nga liggéeyal sëñ tubaa nit nag bu dee liggéey day xool lëm gën a man ca lay gën a gën a gaaw a amee ndam yow alxuraan nga gën a man ci la ko digal mu yor daara jox ko ay dong muy jàngale ñun ñëpp ci loxoom lañ kenn bàyyi sëriñ dundam yëpp daf koo jàngale ba mën naa ne man mii bokk naa ci ñi mujj mokkal ci ay loxoom mën naa ne ñun suñu génération ñun ci la mujj jàngale xaar weesu rek bu ñu weesoo daal mooy di xool àlliwa yi waaye nag jàngale waaye ci ñun la ko mujj a defee kon Sëñ la su ko tuddee bis en tant que sëriñ daara yell na mu nekkoon ku bëgg alxuraanul karim koo xam ne képp ko xam boo toogeek moom dana la ca laaj dana ci waxtaan ak yow fu mu fekk àlliwa dana ko jàng xool ko wax la la ca nekk ku bëggoon alxuraanul karim ku bëggoon alxuraan ju wér koo xamante ne bii dundam gépp alxuraanul karim la ko defoon ci la dund bam jeex ci la jeexal dundam ci la liggéeyal Cheikhul Khadim lu mu am ci ci alxuraanul karim ci la ko amee loolu muy dëggal kàddu ya nga xamante ni moom la ko sëñ Modou Mamoune waxoon kon sëñ la Baye sëñ Mbàkke nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci turu mbooleem njaboot gi amoon na yéene kenn ñëpp ñëw waaye xam ngeen yitte yu bari moo tax sëñ fàllu mi ngi nii lee léegi la fi gonte ànd ak mbooloo war a àndal dox ci wàllu daara ji ñu war a ubbi loolu moo ko tey ñëw fi ne nii nii gont na ca loola am fu ñu war a dem ba Cheikh Abdou mi ngi nii toog Euh, Cheikh Abdoul Khadir mi ngi nii toog man borom saam maa ngi nii toog ànd ak Baye Siñ Mbàkke ak euh, euh, waaw man maa maay borom daal Salaam moom man maa maa nekkal kër gi Daaru Salaam man lañ fi délégué maa fi nekkal njabootu sëñ Ngede waaw kon mel na daal dañ laa xamal ne amoon nañ yéen ñëpp ñëw waaye rek Baye Siñ Mbàkke bu ñëwee rek mel na ne kenn manqué wul gis nañ kii bu baax yëg nañ ne itam bàyyi seen Ngede en tant que sëriñ daara moo tax nga tudde ko loolu kenn la woon ci suñ daara yi ne woon ku mënoon a jàngale daana am loo xam ne ni daana ma ko wax danaa ko wax fii dafa am bis may jàngale man damaa tàmmu jàng ci kaw di ja yor saw téere di jàng ci kaw mu ñëw taxaw tim yuuxu ma Samba ke yow eh, li ngay def xanaa jàngale woo ma ne Thiel mu ne ma yow nooy jàngalee gën a xumb baat ñi ngay jàngale mu ne ma kuy jàngale wërta yorub téere wërta yoru course wërta yor dara warta yittewoo lu may déglu lu may ñiy jàng li ñuy jàng lu mu doon daa ne képp koo xamante ni bi doxalal nga ko ne bind mu di ko jàng nga ne ca leneen ba taari jari ba taari jot nga taari loo ko suma ma këlut soo ko dumaa danga da nga dajeek sa borom loolu wax nañu ko ba tàyyi ku mënoon ko amoon méthode jàngale la te loolu ñun ñuy xam nañ ko bu baax sëñ bii bu am na wax ju ma waxoon joo xamante ne bi mën naa koo wax fii day dëggal loolu ne woon euh, képp koy jàngal wala nga nattu am xelam bam xam ba xam lan la man ba xam ne xel mii lii la mën a mokkal nga waxal ko ko bam man ko toog di ko déglu muy jàng ba tari jot su tari jot su taree mokkal xamal ne def nga la la war su taree mokkalut xamal ne sa jaan wàcc na jaanu wàcc na loolu nag suñ daara yi nañ koy bàyyi xel bu baax waaye doxalal gone bind mel ne man yorub téere di jàng ci kaw walla nga yor sa téléphone di téléphoné wala nga génn di waxtaan ne ci sa yitte ba tari jot nga ne ko ay mu du ñëwal tari tari mokkalu nga nga duma ko loolu ku ko def da nga dajeek sa waroom xale bi jàngaloo ko kon sëñ Balla Baye Sëriñ Mbàkke mi ngi ni toog xam ne sant nañ lool bég nañ lool ci cër bi gis nañ ko bu baax itam di siyaare bu baax njaboot sëñ Mudu Maamadu fi teew yëpp njabootu borom gawaan gi fi teew yëpp di mboolem taalibe yi fi nekk yëpp ci turu Baye Sëriñ Ngédé mi Baye Sëriñ Mbàkke mi nga xamante ne bi mooy kilifa kër gi ak mboolem ñi nga xam ne amoon nañu yéene ñëw te ñëwuñu wasalaamu ala man tabi'al hudaa yàlla gën jëf daaru baaxam ak daaru salaam mel na ni pëlëgu sër bi rek ak i xaram fu mu leen fekk ñoo leen moom kon bu ñu yëkkati kàddu seen kanam dañ koy tuub bu baax a baax a baax di leen ko jéggalu bu baax a baax a baax xam ne ab donga moo toog seen kanam di sant Mame Balla miy jëf ji mu jëf ci digganteem ak Sëñ Moodu Baaxum xam naa lot nañ ci leeral ko sax ndax jiit na suñu judd dañoo judd fekk ko fi digganteem waajur la woon ak sëñ Mor Faasa baaxum muy dox ba ci sëñ Mudu baaxum ak Maam la di dox ba ci ñun ak Maam la ndax bañ jógee daaru baaxum ñëw nekk ci loxo sëñ Amidun sëñ Mudu baaxum dañoo jël teg ñu ci loxo Maam la mu ñuy jàngal ndax xam naa booba njànge mi mokkugul bu baax mi ngi ci mi ngi toll ci diggante jàng ak jàngale booba ci loolu la la nekkoon ñu ànd ko moom ba suñ borom dogal mu ñëw ci daara ji lépp nag fàttewuñ ci dara ndax nekkin wu rafet wu mu nekkoon ak ñun daañu tette daañu jàppale daañu dimbali ba tey jii ñu toog mel ni ñu mel dama koy wax lu bari am naa ko nu ñu mel yow ndax bu ñu jëloon bàyyi ñu ci daara ji rek dongab tër bi la ñuy doon waaye dañu doon dongab jàng ndax yegg na ci bis suñu amee ñu waaj bu bëgg dem saam ca tool ya mënu yéen du ngeen dongay tër bi jàng ngeen ci loolu maam Bali mi moo ko jëf ci ñun yegg na ci fajar bu Moussa jóge ci jàkka ja ci kër gi lay jaay jël ñu yóbbaale ñu li may wax suñu aas mi seede rek ndax bàlle ngi ba muy jàngale fajar benn néeg la amoon ci néeg boobu ci lañ daal jàng fajar ñun ñëpp ñun dongo yi mu nekk jëmm ju baax jëm te teewaayam bii taxul ma koy seedeel li mu def ci ñun moo tax ma koy seedeel ñu ngi lay ñaanal ci kat suñu Tuubaa ak suñu Mor Faas fépp foo bëgg a yegg yàlla na la fa yàlla yeggale ci barke ak képp ku la ko yéene di sant suñu aas mbàkke bu baax suñu laaj nee mi ngi lay sant bu baax a baax suñu laaj nee mi ngi lay sant bu baax di la nuyu bu baax di la siyaare di yeesalaat boppam fu mu toll ci yow ci diggante digganteeg suñu amidun kàddu yi nag kàddu cant la rek waaye li ñu bëggoon wax ëpp na lii ndax temps bee xat waaye ñu ngi leen koy jéggalu bu baax a baax a baax kàddu yi ñu yëkk seen kanam dañu koy tuub bu baax a baax ndax bu ñu sañoon du ñu wax ngeen ñu ngeen ñuy dégg ndigal rek la ñuy xaar ci ba jëfe ko kon dañuy jéggalu kàddu yi bu baax a baax te di suñu boom yàggal leen fi lool barke Sëriñ Moodu jërëjëf. Sëriñ Mbacke Ba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara te di leen jégalu bu baax a baax a baax. mel na ni wax dëgg tarib alquran ku fa ñëw boo sañoon li ngay dégg li ëpp alquran lay doon. kon ñoo ngi leen di jégalu ci kàddu yi boobu ba léegi. xam naa guddi na. te it ñu bëri fi ñu war a ñibbi sori na kon kàddu daayira bi lu ci bëree bëree bëri dañ koy def ay cant rek waa daara ji nga xam ne ñoo taxawal bis bi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teewul muy ñi nekk ci biir daara ji ak ñi fi nekkoon ba bàyyi ko fi wax dëgg ñuy ay jàmbaar lool bàyyiwuñ daara ji fàttewuñ ko kon nag bu ñu wëlbatikoo boole seeni alal ak seeni ñaq ak seeni xalaat ñëw ngir taxawal bis bi mel nii woote mbooloo mu bari teew fi kilifa yeeg yëpp kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ginnaaw ba it ñuy sant bu baax a baax a baax a baax kaan yi nga xam ne ñoo wattu alquran bañ di leen defal bis bii muy bis bu am solo lool nga xam ni ñoom war nañoo def ab soññee ci seen gone yi nga xam ni ñoo nekk ci seen ginnaaw ñu gën a góorlu jéem a def ni ñoom mel na ne am na ay bayit ñu leen tënkaloon waaye comme daa gàtt dañ koy tënk rek daal di ñaan bismil ilaahi ma jóg sargal njukkal suñu kaang boobee ba tey ñi ngi doon góor góor lu def li ñu man bismil ilaahi ma jóg sargal njukkal suñu kaang boobee ba tey ñi ngi doon góor góorlu def li ñu man waaw góore góor ñi ñi ci ay soxna ma ni leen waaw kumba ndax li ñu muñ ngir wattu téere bi gën bind ak nafar ak wet lu ñu song daan ko ba tey kaamil bi lépp ñu daan sargal bi war na fi man sëñ Modou Diop jërëjëf jaaraama sëñ Modou Dem ak sëñ Abo mbakke ak sëñ Abo mbakke Diop alxaaji Saalixu Kan sëñ Modou Diop jërëjëf jaaraama sëñ Modou Dem ak sëñ Abo Mbàkke Diop alxaaji Saalixu Kan ak sëñ Seexuna Mbàkke Mahmad jonn soxna itam fu ñu tudde góor tudd leen ndax nee ñu góor ñu man maam Xawa Mbàkke kada maam Anta amika am ngeen médaille yi fi gën am ngeen li gën àdduna ak lim ëmb yéen a fi man maam Xawa Mbàkke kada maam Anta amika am ngeen li gën àdduna ak ëmb yéena fi man bég naa ci yéen ba waral may sat di way wane ko nit ñépp ñeenalu leen am ngeen médaille yi fi gën may ñaan ci buur yàlla may leen mucc ak gudd fan ak barke xam-xam bu doy ñun ñëpp nañ ni amiin may ñaan ci bër yàlla may leen mucc ak gudd fan ak barke xam-xam bu doy ñun ñëpp nañ ni amiin xam naa dañ koy tënk foofu ngir guddi na ca am na gone yoo xam ne tëreegun war nañoo tare alquran kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di soññ bu baax a baax a baax euh, ñëpp di sant mbooleem ku fi teew ndax woote ñu teewal la loolu daa rëy loolu rawatina alquran kon jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم أحسنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عثرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المسهر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم قبله لمن الضالين صدق الله العظيم di ñaanal bu baax a baax ma sëriñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di siyaari bu baax a baax sëriñ Abo Mbàkke di ko ñaanal suñ borom yàggal ko lool ci suñ kanam tam ànd ak wér ak mboolem waa kër sëriñ gaawaan yi nga xam ne teew nañ fi yëpp di siyaare bu baax a baax sëriñ As Amidoun ak mboolem waa kër sëriñ Amidoun yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey leen siyaar te leen jox seen wàccuwaay di siyaare bu baax a baax ahlu alquran yi nga xam ne ñu ngi fi teew soppay alquran yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te leen siyaare te leen jox seen wàccuwaay di wax ne nag euh, ñi ngi sant bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci daara ji moo xam ñu nekk ci biir daara ji seenu njaboot nekk fi wala sax seenu njaboot nekkuñu fi waaye dañoo bëgg alquran rek di fi feeñal seen yéene ngir alxuraan yal na leen alxuraan fayal seen bopp waaye di ñaanal bu baax a baax soxna Daba Mbàkke mi nga xam ne moom lañu bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañu dara jaare bis bi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ndax waxtu wii daaw mi ngi fi woon te waxtu wax dëgg yàlla de lu nekk yónnee woon na ko fi ay kaamilu alxuraan ak lépp yónnee woon na ko fi wax dëgg yàlla ay teraangaam tamit mës ta jug ci daara ji ba tey sax euh, soxna maam Faty ñi ngi koy fe ñi ngi feddali li nga xam ne moom la seen way juróo bëggoon ak euh, soxna Astou waaye soxna euh, maam Xari Mbàkke tamit ak soxna Njaxat Mbàkke ba tey ñoom it ñi ngi feddali cofeel googu nga xam ne moom la seen way jur wa amoon ci daara yi maam Cheikh Anta Mbàkke bi ñi ngi koy yeggale bu baax a baax ñu leen di ñaanal suñ borom tamit yàggaleen lool suñ kanam te ñu ànd ak wér ci barke Serigne Touba di wax ne daara ji tamit euh, yamut ci jàngale kese day boole jàngale ak yar ak jàngale xam-xam bu baax a baax ndax jigéen ñi wax dëgg yàlla ñu ci baree bari na ngay nekk ci ñoom di ci sonn waaye daanaka bis day ñëw ñu sëyi rek bu ko defee xam-xam bi daanaka du fi am moo tax ñu jël benn méthode bu bees boo xam ne moom la ñuy jàngalee fi mu ne nii nga xam ne koo xam ne rek dem na bay waaj a wàcc te xelam neex lool ñu boole kook téere bi nga xam ne mooy xam sa farata nga xam ne ay olof yu leer nañ la lay waxal ñu daan la koy jéem a jàngal pour nga mokkal ko ngir bu fekkee ne dem nga ba wàcc wala nga mokkal alquran bu fekkee ne say wayjur bàyyi nañ la fi ñu mën a ànd ak yow ci téere yi nga xam ne mooy tasawudu sixaar wala naaju wala yu mel noonu ñuy sàkk bu baax a baax képp koo xam ne am nga fi sag njaboot tamit ñu lay ñaan yii di bulus yi nga xam ne moom la ñuy wax ne pour ñu dimbali ñu ci ci daara ji ñu jàpp ci bu baax a baax ndax nañ ñu mën a dimbale bu baax a baax ci yar yi nga xam ne moom lañ bëgg a yar xale yi ndax boo ne jàng alxuraan rek cor gi jot day daal di ñëw te bu fekkee ne nekkul ne cor gi jot gi ñëw ñëwul rek boobaa daf ñuy xaw a kii moo tax ñu bëgg ñu jàppale ñu baax a baax a baax ci bulus yi waaw ñu bëgg ñu jàppale ñu bu baax a baax ci bulus yi ndax bulus yi moom fi mu ne nii dafa waroon a nekk ku ci nekk da nga waroon a am ñaari bulus waaye fi mu ne nii ku ci nekk benn nga am te am na ci ñoo xam ne mënaguñ mënuñoo am te bulus yi wax dëgg yàlla seerul 5000 rek lañ koy jëndee ñuy ñaan way jur yi nga xam ne ñi ngi ñuy dégg te seeni doom nekk fii ñu ngi leen di ñaan ci barkeb alxuraan yi nga xam ne ñëw nañ ñëw nañ fi ñu dimbali ñu bu baax a baax a baax ci bulus yi ndax dina tax bu baax a baax yar yi ni gën a mën a baax aw ci yoon ndax boo ne alxuraan wax col gu jot ba tey dina tax tamit képp koo xam ne Euh, ak yi muy xale bi dinañ ko dind ci moom ba mën a set wecc ndax ay bulus moom bu ñu ko solee toog doo xam ki nga xam ne way juróom am na ak ki way juróom amul bu ko defee lu man di mel buñ mën buñ la rombee rek doo mën a xàmmee ba xam kii way juróom am na wala amul ñuy sàkk bu baax a baax a baax ñu dimbale ñu ci bu baax a baax ndax dinañu yokk ci ci dinañu mën a dimbale bu baax a baax ci yar yi ñuy tuub kàddu yi bu baax a baax a baax a baax waaye ñuy sant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات الصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرنا تكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه حسبك ما شاء الله الله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونسله جهنم وساءت مشيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن ذلك نصيبا مفقودا ولأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن فليبتكن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم آيات منزل الكتاب نزلي عن العذاب معذلي إذا تلوت آية نلت منا من مالك ملك قد أمنا تسليم باخ لا يزال أكرما على الذي لي يؤدي كرما أبقى سلامي الذي لي خادا بدل سيء بردا فانخادا